Serigne Cheikh Ngounda Fall, Baye Ma Fall, Fall Jàmbaar

ak jëwrinam sëñ Modou Ngom ak rakkam yi ko fi teewal yëpp sëriñ Saliou ñu ngi ziare jabatu maam Cheikh Fall gi fi yendu ñun eh, di leen ñaanal ci barke sëñ Tuubaa Cheikh eh, ñu waxoon ma ne naa leen waxal rek xam naa dañoo baax di ma jox ci kii bu ma waxal leen waaye wax dëgg yàlla li ñuy wax ñoo ma ko dàq foofu ah seen baax rek ñoo tax ñu di ma ko jox waaye nag ñu santale ko yàlla rek barkeelu ci wax ne kër gi moom comme niñ ko xamee rek niñ ko daan defee li fi samp kër gi te ba ko fi mooy ku fi ne bu fi nekkoon di liggéeyal sëriñam rek moo fi nekkoon te moo fi nekk ba tey kër gi moom kër taalibe la du kër sëriñ sëriñ saa nga ne toog taalibe yi ñoo fi nekk dekkal fi sëñ bi di ko liggéeyal commencé ko ci jëriñ sëñ Modou ngoom ñu koy ñaanal suñu boroom defal ko jàmm defal ko xéwal defal ko wér ci barke sëñ Tuubaa Séex ak mbooleem njabootu Maam Moussa Ngom di wax ne bi ñu xëyee jàng nañ fi ay kaamil ñaar fukki kaamil jàng nañ ko fi def ay salaatu na nabi def ay yaa latifu lépp ñu jël ko def ko addee maam Cheikh Fall ak taalibeem ba ko daan liggéey li sëñ Moussa Ngom di sant ñëpp nag di leen gërëm eh, xam naa sëñ Fall lu bara manqué ci man lay manqué waaye li ngeen bëgg a wax moom mooy loolu waaw eh, di sant ñëpp nag di leen gërëm di ñaan ñu fekk ko déwén ak jàmm te jëwriñ ji nga xam ne ni moo ko daan jiite itam suñu borom may ko wér ci barkeb Sëriñ Tuubaa Cheikh ñu fekkee war ko déwén ak jàmm jërë ngeen jëf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bajana doo gur yàlla doo si ren root lislam du ko gërëm babar ko diggu Seex Ibra Faal lañ ko may ba julli wàcc waa karame ba du ca del man wàññi ko di laayaram lay laa illallah lay laa illallah faal ñeweeram lay laa illallah Layla ilala ni la faal yor

baay lu mu am ana soppay Cheikh Moussa Ngom gorsu gori ngi fi Cheikh Moussa Ngom Cheikh Moussa yaay jambaare gorsu gori ngi fi Cheikh Moussa Ngom du fi li nga xam xam le yoonu sunu borom Cheikh Moussa Ngom jambaar la baax yaa gore yaa ta bengom ku sopp Cheikh Moussa Ngom jugal taxaw ca kono màggal jooje la waaye Cheikh Moussa yaa gore yaa baax yaa ta be Cheikh Moussa Ngom ku jegle diine ca baayam ku jegle diine ca baayam te ndem yu yaa waaye la ca maamam Cheikh Moussa mu doonu leera ki baatin namp ngor bari ay ndame bari bari ay ndame ku dégle gi ne ta ba ku dégle gi ne ta bàyyi ba di dégle yow na ci maamu mu doonu leera ki baatin namp ngor bari ay ndam Cheikh Moussa yaa jara àndal ana ñu ànd ak Cheikh Moussa

waaye macha allah sama yaay ni ngeen ko defee nii ah balan yi saf na balan yi saf na jekk na waaye li rax balan Rabba Moodu Abdoulaye Fall Ndar mag gi dootul ilaha illa la noon yaa ko génne néegi Mbàkke baare sanan ba sanga nan ko ndar ngoy jaar la ilaha illa la musawa la ilaha illa la لا إله إلا الله يا ربنا لا إله muhammadu rasulillahi daam la ilaha illallah rabbana la ilaha illallah la ilaha illallah maam seex la ilaha illallah la ilaha illallah إلا لا و لا لا لا لا إلا إلا لا الله إلا لا باي باي إلا لا و لا لا لا لا إلا إلا لا la la la la la la wo se musa no ma bak la la la la ala la la la la la wo la la la la la la la la la la la la woo ay Modou la la la la ala la la la la la la woo la la ala illa la ay la la la wo Cheikh Ibra Fall na ena ila illa la ala illa la la la la Cheikh Ibra Faal yaa seexal Cheikh Moussa Ngoma Faal yaa ko dem Baay Faal ay waaji ay lay la la woo lay lay la la la ila ila la ala ila la لا لا لا شيخ برافال ما قال لين مام شيخ برافال ما قال لين مام شيخ برافال الله انا لا مصطفى لا إله إلا الله Allah la la la la la Cheikh Ibra Fall la ilaha illallah la ilaha illallah la la la la wo Cheikh Ibra Fall إلا لا لا إله إلا لا Ibra Fall ku sopp Cheikh Ibra Fall nel ni loxo ca kaw ku sopp Baay Moodu Ngom nel ni sa loxo ca kaw ku sopp Cheikh Moussa nel ni loxo ca kaw la ilaha illa Allah la la la la la la la la la wo la la la la la la la la ala la la la la la la wo Cheikh Ibrahima la illallah illallah Allah illallah illallah wo sayyidina la ilaha illallah la ilaha illallah inna ay waji la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala oh, illallah la ilaha wo Cheikh Ibra Fall suru mam sayin bu jaay Cheikh Ibra Fall day nga naa lay lay la la woo awaay lay lay la la la ila eh, ila la ala eh, ila la eh, lay lay la la woo ila la la ila ila la ala ila la oh, ilallay faal lay la la Cheikh Moussa Ngoma baax yàlla daal nga yëngo la la wo la ilallay la la ay la la la woo Cheikh Ibra Fall yu nga na mama ay la la ala ay la la ay la la la woo oh.

la la la fa la la la la la ina la la ya rabbana inna la la la la wo la la la la ina la la la la la la la la la oh in la la la la la la la oh, oh. waaw waaw kay Cheikh Ibra Fall la la yàlla daal la ilaha illa la woo Cheikh Ibra Fall la ilaha illa la yàlla daal la ilaha oh. Cheikh Ibra Baalo la ilaha la ilaha illallah ala illallah waaw waaw ala ilaha illallah ala illallah la la la مصطفى لا اله الا الله لا اله الا الله شيخ ابراهيم فالي جاي شيخ ابراهيم لا اله الا الله ربنا لا لا لا لا Moodu Mbenda Fall gaynde Moodu Mbenda Fall ee rabbana la la la la illa la alhamdulillah ye sant maam war na la la la la inna la wa alhamdulillah

la la la la lay lay la la alhamdulillah ya sant maam war na alhamdulillah ya lay la la sant maam mi faale alhamdulillah ya sant maam war na alhamdulillah ya lay la la Cheikh Modou Ngom baax alhamdulilah yaa na loolu dëgg la lay la la Allah nee na alhamdulilah yaa sant ko war na Baye Moussa baax la la la la la la la la alhamdulillah ya sant ko ma war na màggal Géejawaay waaw Gala. ya rasulullah barke borom maam Serafal ñoo ngi ñaan lu fekk tur yàlla bu néew bu bari yàlla dëppoo gërëmal sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra di ñaan képp ku fi teew yàlla sàmparam yàlla faj say aajo zahir ma bàtti na di ñaan xalifa mi nga xam ne moo fi ne yàlla yàggal ko fi lool ak njabootu moom it gépp ci laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah ak ko fi teew nag ya xam serigne ba nga yakar yalla nga am ngeureumal man mi yoron radio bay wax yalla naa am ngeureumal serigne Cheikh Fall borom digal ah Cheikh Mountakha basiru yalla fi yak lool te serigne Cheikh Fall jëm bu yalla fi yak lool te barke mam serigne Fall suñu Fallu wax deug yalla santan nan bu baax dégg nan bu baax ndax ko xamna ni fatat liba مسموني خليمة فتات الإمام مضموني خليمة العباد Sumana 감사합니다. What together.